أعوذ بالله بسم الله إن ولي الله وما توفيقي إلا بالله ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهلل عقدة من لساني يفهم قولي مبقي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نيونغلين دي نيو بو باخ تدي لين شياري تدي لين جاجفال سي توب مونغي توب فيديو di leen sant bu baax ci bàyyi xel gi ngeen di bàyyi xel seen seen bu am solo bi muy le grand secret aw wolof di leen wax ne tey nag dikkaat nañ ak yéen ci seenu beneen secret boo xam ne bu ama am solo la ci wàllu wërsëg muy secret boo xam ne bu dee yàlla dafa dogal ngay liggéey te liggéey bi doxut incha allahu rabbi nii ñu koy waxe boo ko defee liggéey bi dina dox muy secret boo xam ne bu fekkee ne da ngay nit koo xam ne da daan lijjanti dara muy të boo defee secret bi lépp loo lijjanti suñ borom mën na ko bu baax a baax a baax incha allahu rabbi muy secret boo xamante ni bu fekkee ne da nga nekk nit ko tëju boo ko jëfandikoo suñ borom mën na la ubbi bu baax a baax a baax muy ma leen di wax ci gàtta daal secret la boo xam ne nit du ko jëfandikoo mukk mukk mukk mukk mukk te suñu borom joxu ko wërsëg déedéet mënta nekk ni ñu koy waxe boo ko teewloo bu baax a baax a baax defe ko ni ñu koy waxe insha allahu rabbi biir wërsëg dina la yomb lool li secret wërsëg bu wér boo xam ne boo ko teewloo bu baax defe ko nii ñu ko waxee insha allahu rabbi wërsëg dina la yomb lool lool lool insha allah xanaa di defati ab fàttali bu gàtt rek ci mbokk yow mi nga xam ne yaa ngi seetaan video bi te abonné ko ci seen bi nga abonné tey partage video e say xarit say àndi jàmm ñu man si jariñu kom yow ni ngi si jariñoo di la fàttali yow mi nga xam ne da nga bëgg a bokk ci groupe bu bi mën nga ñu ci numéro bi 77 684 28 28 ñu wax la condition yi ni bokku ci groupe bi insha allah yow mi nekk ci réew mi wala nga nekk bitim réew te bëgg ku la defal insha allah rabbi boo joko ak ñun des na la defal listixaar gu leer insha allah di dafa fàttali ci ñëpp rek mbooleem lu jëm ci wàllu ñaan dañu koy def ci lu dagan mbooleem lu jëm ci wàllu ñaan lu man di doon dañu koy def waaye nag na nekk lu dagan insha allah rabbi te képp koo xam ne yàlla dogal na ba jëflante si insha allah rabbi di nga am xol bu sedd guyu alhamdulilah lii nag li tax ñu koy wax mooy mbokk yu bare bari dañ ñu koy faral di laaj ngir jàpp ne dañuy dugal ay ay secret ci youtube bi ngir di jàngale rek waaye dañ leen a bëgg a xamal ne mboolem luy wàllu ñaan lépp dañu ci yëngu waaye nag képp ku ñu ñaanal na fekk mu nekk lu dagat incha allahu rabbi di wax mbokk yi nga xam ne dañu mujj ñëw koo xamante ni seetaan nga benn vidéo boo xam ne am na lu desee leer ci yow rek man nga bind say laaj ci commentaire yi incha des na la ci tontu xanaa kon ñu ñëw ak yéen ci secret bu am solo bii nga xam ne secret warsak la waa secret bi nii nga ko gisee nii. saaru isaa waqaxatil waaqixa moom ngay bind aaya boo yegg ci isaa waqaxati da ci dugal suyina linaas xubbu saxawaati min an nisaai walbaniin walxanaatiiril muqantarati min alsahabi walfiddati walxaylil muzawamati walanxaami walxars saalika mataaxul xayaati dunya wallaahu xindoo xusnu maab boo noppee nga dugal ci saaru alam nasarah bi alam nasarax laka sadrak wa wadaaxna hanka wisrak allah shi an anqadda saharak wa rafaxna lak sikrak fa inna maa al usri yusran inna maa al usri yusran fa isha farahta fanshab wa ila rabbika farhab muy saar bu ama am solo ak aaya bu ama am solo bii mbokk lii di suyina ak alam nasara ñoo tolloo même ay ay baat ñoo ay baat muy ñaari benn saar bu ama am solo ak benn aaya boo xam ni lii di wàllu wërsëg lu ko ci gën a gaaw amut lu ko ci gën a gaaw amut boo bindee waqama bi isa boo demee ci gaa yi bind ñoom am nañ ko danga ci ciy bind juróom-ñaar ki bind <clears throat> saaru isa waqan aaya bu mu bind day bind suy na ba mu jeex bind alam nasara ba mu jeex la ca gën mooy boo bindee ñaar yi ba mu jeex nga dugal sa tur ak sa turu waajur wu jigéen <clears throat> daal di bind aaya ba ca topp daal di bindaat aaya ba ci topp isa waqati ngay bind ay bo bind def suyina ak alam nasara bind sa tur bind sa tur wajur bu jigen dal bind ay bu ci top ba waqxa bi jeex nga defat ko ba muy juróom-ñaari kayit muy juroom ñaari waqxa boo noppee juroom ñaari waqxa yi nga xoj ko boko nga wut parfum bi ñuy wax parfum kafour parfum kafour ñu bari xam nañ ko moom ngay wut am na benn sunguf boo xam ne dina ko àndak ak moom muy sungufu was wasuur boo ko mënee am nga xooj juróom ñaari waaqa yépp jël parfum kaafoor bi def ci di ko sangoo juróom ñaari fan yu tegaloo li ci gën nag mooy njëkk nga koy sangoo nga jéem a fexe ba wut faatiha bu ànd ak wa in yàkkaaru nga wut ci juróom ñaar def naa ku bàyyee xel suñu wideo yi am na ay wideo yu bari yoo xam ne leeral nañ ci njariñul faatiha bu ànd ak wa in yu ànd ak wa in yakkaadu lum dindi ci doomu aadama amut moo xam nit ki dañ ko liggéey moo xam cat dafa bari ci moom mo xam gàllankoor bu nit mëna am ak bu man di doon insha allah rabbi bo wutee juróom-ñaari fatiha yu ànd ak way ni yàkkaat wut juróom-ñaari ngeer nga di ci sangu di ci naan insha allah rabbi lu nekkoon ci yow ci gàllankoor dafay deñ bari nañu baree bari ci nit ñi mën nañu yor secret bu wer def ko fekk ne seen yaram moo taq sa yaram bu fekkee dafa taq nga raxasoo sa yaram bëgg a jekki-jekki jël jëfandikoo ko pour mu pour mu jàppale dafay jafe ñaan dafa am ay yoon am ay code boo xamee yoon yi ngay jaar xam code yi pour nga am ci résultat dafay yomb nit bu fekkee dangay nga war a jëfandikoo lu mel ne wërsëg wala lu mel ne ubbiku wala lu mel ne bayre da ngay jéem njëkk nga nettoyer sa yaram nga raxas sa yaram sa yaram bu setee rek luñ la mën di jox boo ko jëfandikoo da nga koy gis ca mu gën a gaawee ñu baree bari doon nag lañ xamut loolu mooy tax. ay bo wute fatiha bo ànd ak weeni yàkkaat juróom ñaar ndaw juróom ñaari reyna ngeer nga fexe ba def ko ci benn seo bu mag naan ci chek bu dee nga sango ci ba mat juróom ñaari fan nga doog di sango waq bii nga xam ne aaye boo bind def suy na suy na bu jeexee nga def alam nasara bu jeexee nga def sa tur ak sa tur waajur wu jigéen wut parfum bi ñuy wax parfum kafour parfum kafour boo demee ci marché bi bari na fi lool wut sunguf si ñuy wax sungufu waswasuur nga def ko ci moom it di ko sangoo panna sept jours incha allahu rabbi bu fekkee na da nga nekk nit ku tëju suñ borom dina la def ngay nit ku ubbiku bu fekkoon ne da nga da nga nekkoon nit ku nuru ku ñàkk wërsëg di nga mujj nekk nit ku bari wërsëg lool bu fekkee ne da nga nekk nit kuy liggéey te liggéey bi doxul incha allah rabbi boo ko defee wërsëg bi dina la dikkal ba yow dina la yéem muy secret boo xam ne wax dëgg kenn ci yéen ku ne niñ ko joxee naka jéem a mu def ko incha allahu rabbi bu ko defee njëriñ rek la ci gis kon xam naa koo xamante ni am na lu dese leer ci sa bopp mën nga bind ci commentaire yi képp koo xam ne tamit ba nga bokk ci groupe WhatsApp mën nga ñu contacter ci numéro bi incha allah ñu wax la condition yi ñu ci duggee. di wax ne ñu ngi leen di sant encore une fois message yeeg appel yëpp ñu ngi koy gis jërë ngeen jëf am naa kon fii lañuy yem ak yéen ba ëllëg ñu ñëwaat ak yéen ci suñu beneen vidéo wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu bu leen fàttee abonné tey partage vidéo yi mu gën a yaatu bul fàttee abonné te partage vidéo yi mu gën a yaatu jërë ngeen jëf ba suba incha allah